am na kàddu yu ma waxal wax président léegi loolu eh, rek laay waxaat tàmbalil ko Cheikh Bass mu àggaleel ma eh, loolu moo di eh, yoonu wii moo ko moom cant ak ngërëm rekk la fekk ak ñaanal ko ak gën a yeesal sama dénkaane moom dénk gi ma ko dénk sëriñ bi maa ngi ko gën a sëriñ bi laa am tey moom la moom la soxla ëllëg moom la soxla am ci biir moom la soxla am ci bitti soxla wu ma dara loolu am sëñ Tuubaa du ma dara rek laa am kon eh, moom laa koy moom laay ubbeel sa bas ndax xam ne eh, ñëw gii gii moom ko moom bëggu ko kenn cant ak ngërëm dong la fi fekk ndax taxawaay bi lam man ak lam mënul lépp def na ko ci ci ci defal ko sëñ Tuubaa te sequ fekk kenn dara ku dul sëñ Tuubaa dëgg la sequ kenn dara ku dul sëñ kon li muy def ginnaaw sëñ Tuubaa la ko defal la koy defal la koy liggéeyal kooku jaamu yàlla gu rëy la ndax sëñ Tuubaa soxlawul dara loolu borom lu koy defal yàlla nga ko defal kon noonu rek la demee kon nag sax bas àggal leen ma la ci des waaw foofu foofu foofu foofu la toll